xaaj bu njëkk bi ci juróom benn xaaj yi yàlla yónni na musalkat bi mu dige tey dinañu waxtaan ci mbirum yéesu kirist musalkat bi yàlla dige mooy isaa ci alxuraan tur woowu mu ngi tekki kàddu yàlla gi yàlla yónni na yaxya ngir mu waajal waa israyil ñu nangu musalkat bi loolu amal na li yonent yàlla esaayi waxoon bi mu nee maa ngi yónni sama ndaw ci sa kanam mu xalal la sa yoon baata ngi xaacu ca màndig ma naan xalal leen yoonu borom bi jubal leen fi muy jaar juddu yaxya kéemaan la am malaakam borom bi dafa feeñu sakariya booba sakariya moo aayewoon liggéey ca kër yàlla ga malaaka mi wax sakariya ne jabaram elisabet mi jaasiroon dina am doom ju góor te yaxya lañu ko war a tudde malaaka mi ne ko liir bi buy juddu dina fees ak xel mu sel mi mu amee noonu fekk na elisabet màggat la woon bi yaxya màggee mu tàmbalee waar nit ñi yaxya di waare naan nit ñi war nañu tuub seeni bàkkaar war nañu leen soob ci ndox ngir yàlla baal leen nit ñu bare di dem ca màndiŋ ma ngir déglu yax ya muy jàngale mu soob ñu bare ca dexu yurdan yaxya ne ku ko gën a màgg dina ñëw nee na ci téere injil maa ngi leen di soob ci ndox waaye moom dina leen soob ci xel mu sell mi léegi ma laaj leen benn lu tax yàlla yónni yaxya ak lan la yaxya yëgle yàlla dafa yónni yaxya ngir mu xàll yoonu musalkat bi yàlla dige wax na ne nit ñi bàkkaarkat lañu yu yelloo mbugalu yàlla te soxla nañu tuub ñaar lu tax Yaxya daan soob ci ndox nit ñi tuub Yaxya dafa leen daan soob ci ndox ngir wone ne nangu nañu ne bàkkaarkat lañu yu yelloo dee